doomi réew mi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay di leen jaajëfal fépp fu ngeen mën a ne tey teewlu combat bi ñi nekk ci terrain bi di ci def seen doole ñi nekk ci diaspora bi di ci def seen doole ak seen xalaat yéen ñooñu ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal di leen remercier bu baax a baax a baax a baax a baax di bég ci yéen ci taxawaay bi ngeen am dafa am solo yàlla xam na ko su ma duggee ci réseau yi ba gis gaa yi di live moo xam ay vidéo antifère yoo xam ne ci réew mi la ñuy wax tolluwaayu réew mi di ñaxtu di def lu ne ngir réew mi jëm kanam sama xol bi day sedd guy yàlla xam na ko parce que yi léegi yeewu nan ñi ëpp ci ñoom bokk malgare am na ay làppatu yoo xam ne tey ñu ngi mel ni ñoom du seen doomi baay seeni baay juru leen ngeen war a am taxawaay te xam ni réew mi ñun rek ñoo mën a taxaw pour réew mi soppeeku ñun rek ñoo mën a jël décision ñun rek ñoo mën a ànd ak détermination ñun rek ñoo mën a taxaw temm di ko lànk ni lii du fi am ba mu bañ fee am kon yéen ñooñu ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal ñu ngi leen di jëfal bu baax a baax euh, di wax nag ñu bari ndeysaan ñu ngi am ay xol yu naqari euh, ñii ñu ngi lâché te yooyu yëpp ay kii la yoo xam ne waruñu cee tàbbi ñun tey lan war a gën a bég tey lan war a gën a ànd ak détermination tey lan war a gën a mën a taxaw tey lan war a gën a mën a indi ay idées yoo xam ne tey jii nii maanaam pour xeex bi la di leen wax ne xeex bi dinañ ko gañe dinañ gañe xeex bi bu baax a baax yàlla xam na ko boo koy wax nag bari na nit ñu bari ñoo xam ni xam nga découragé nan ñu ci bari nag. dëgg la bari nañu ci bari ñoo xam ne am na découragement boo xam ne tey malgré fësaluñ ko ci kanamu askan wi mais mu ngi jàpp mu ngi ñu jàpp ci seen biir xol te loolu mën naa ñàkk di leen wax communiquer leen ak ñi nga xam ne ñu ngi Sénégal nga xam ne économie bi ñoom dañ ci yëngu bu baax a baax a baax a baax ngeen laaj leen Sénégal Sénégal dafa gën a ñàkk xaalis Sénégal dafa gën a taxaw dañoo gën a nekk ci ay jafe-jafe. te li ko waral manifestation yi ci la bokk kon manifestation yii ñu manifester ku ne amul solo ku ne deful impact yaakaar naa da nga nekk nit koo xam ne danga nga bëgg a décourager sénégalais yi mais sénégalais yi ay jàmbar dëgg lañ sénégalais yi seen taxawaay dëgër na seen taxawaay rafet na seen détermination am na solo nin joxee bu réew mi bopp taxaw di lank li fi nekk dafa am solo. am na solo bu baax a baax damay dégg sax ay nit ndeysaan yoo xam ne xaj na seen xol rek mooy jeex ndeysaan ñu naan waaw sénégalais yi dafa mel ni dañoo détourné xeex bi ci sëriñ si déedéet détourné wuñ xeex bi de daf dafa am loo xam ne daf fi amoon dafa am loo xam ne dafa amoon day baax ñu ciy ñëwaat. ñu jekku-jekku boo xam ne askan wépp gis nañ jekku gi nga xam ne jekku nañ ko keroog lii ma leen di wax dellu leen 2021 ba Ousmane ko di wax mu Mamadou Diop Decroix mu ngi ci wetam dem leen xool maanaam dem leen xool réaction yam doon def dem leen xool ngeen seetaanaat vidéo yooyu discours boobu Ousmane ko doon def ngeen xool mu mu Mamadou Diop Decroix réaction yim doon def mu bëgg parce que ñépp jàppoon na ni réew mi moom Macky Sall dootu ko gouverner ñépp a ko jàppoon Macky Sall dootu ko gouverner Sonko ñëw indi discours républicain am taxawaayu républicain ñu bare baree bare yàlla mi ñu tiim xam na ni ba ci man mi gën a ñàkk solo ci activiste yi def naa ci live ni lii erreur la boo xam ne mën nañoo jural ay problème parce que tey ana sëriñ soosa doon dox tànki jàmm ni réew mi moo leen ñor Sénégal dëkku Seydi Hadji Malick la Sénégal dëkku Seydina Limaamu la Sénégal dëkku Sëriñ Tuubaa la Sénégal dëkku Seexul Islaam la Sénégal dëkku Seexu Ceneba la Sénégal dëkku Maba Jaxu la Sénégal dëkku Seex Omar Fuuti yi ñu waxa waxa waxa waxa wax ba Sénégalais yépp teg ci suuf ñu jël ay poñ booba Ndongo jóg mu ngi ci kaso bi Abdou Karim euh, Abdou euh, non booba Abdou Karim Gueye sax nekkul ci kaso bi mais Ndongo jóg booba mu ngi ci kaso bi xoola tey ñaata détenu politique tey lan jàpp tey dugal ci kaso bi ay mille cent nangam détenu politique ñu ngi ci kaso bi amu ci kenn koo xam ne tey yéy nga ci yàbbi te ku ci dee. Touba lan lay yóbbu wala ñu yóbbu la Kaolack wala ñu yóbbu la Tiwaawan wala ñu yóbbu la Yoff suuli la ci armeelu Dakar yi ñii doomi réew mi ngeen nekk ay nit yéen nekk doomi réew mi am ay responsabilité ci réew mi responsabilité yooyu ngeen am ci réew mi ñàkk ko jël ñàkk ko appliqué moo tax ñuy wax ci yéen mais xeex bi détourné wul ko kenn détourné wul xeex bi xeex bi duñ ko mës a détourné duñ mës a trahir Ousmane Sonko duñ ko mës a trahir tey leen gën a taxaw tey leen gën a ànd ak détermination tey leen gën a mën a xool ñi nekk ci terrain bi pare pour xeex ñu dooleel leen lin man tey leen ci gën a pare dafa fekk ne nag mbir. bu amee nga gis ni lii luy yàq la wax ko yàqul dara sëriñ ci ñoo jiitu ci ñu yàq réew mi ñoo jiitu ci ñu yàq réew mi loolu wax ko jotewut ak Ousmane Sonko mii ñu téye ak di sensibiliser ndaw ñi ak di leen yëkkati pour ñu jug jotewul dara loolu sax yaakaar naa ndaw ñi nga xam ne dem nan bay njortu ni ñoom sëriñ ci ñoom lu leen teree wax xanaa ñooñu loolu sax da leen a war a motiver ñoom ñu génn ci terrain bi xeex avant li di xew waxna ko fi avant discours bas abdou khadir bi mu def barki demb neena len ku ngeen ci gis mu wax de len xol ban genn di wax ciow li duñ ci wax buñ genné di wax problème magal gi lañuy wax situation ndoxum touba mi ba lijeent ko ba magal gi passé pare nan ci mais sancaan yi fa nek ñàkk ndox sancaan yi fa nek di ta ñi nek ci bir dëkk bi tay tay tay bas amna kër gu mag go xam mu ngi allier secteur boobu la tax muy taa këram googu waral na ko parce que ndox mi yépp ci mbedd mi lay versé li may wax ñi dëkk allié xam nañ ko ah ndum mbañeel gun leen jàppal da ngeen a bokk ci réew mi ñu bokk ci réew mi réew mi yitteel ñu lool ñuy xool li tee dox réew mi ak réew mi tey nan lan war a mën a def tey ba mu dox ñu gis ni réew mi mën naa dox mais yéen da ngeen a nekk ay yàqkat yoo xam ne tey maanaam réew mi dox gënalu leen loolooy dëgg loolu mooy dëgg dañ koy wax bu fekkee nag ñi jàpp ni lii ñuy wax ci sëriñ si day yàqal usmaan Sonko Sonko kon du fi masa falu malgré dañuy xeex tey pour mu pour mu falu ci réew mi soppi doxalin bu bon bi nga xam ne moo nekk ci réew mi mais lii dafa nekk loo xam ne tamit lu nu war a dénoncer la ab combat la ab combat la nii ñu seetaanee réew mi nii ñu seetaanee ndaw ñi nii ñu seetaanee hôpitaux yi du dëgg du yoon dañ koy wax dañ koy wax. réew mi dañ koo war a taxawu réew mi dañoo war a mën a jug pour mu dox réew mi ndaw ñi dañoo sonn réew mi tey jii ñaata chaque année chaque année ñaata jeune la ñuy déclarer tey ni dee nañ ci géej gi ak désert bi chaque année nag laa wax chaque année daaw bi ñu fi dee la Bass Abdou Khadir génn ni ku dee ci ku ci dee da ngaa xaru te day duul booba Macky Sall la ko joxub enveloppe. parce que dee gi ndaw ñi di dee ci ci ci géej gi tamit gàcce la ci moom parce que moom lan fal pour xëyu ndaw ñi kon bu ndaw ñi gisul seen bopp ci réew mi bay génn di jël gaal yi di clandestin di lab ci géej gi di dee ci désert bi loolu responsabilité kan la ci leen war a jox am xëy te joxu leen xëy yokk courant bi yokk ndox bi yokk ceeb yokk suukar yokk lépp te réew mi tey am ressource naturelle yoo xam ne tey réew mi mën naa jëm kanam ngeen ni duñ ko wax dañ koy wax sëriñ si dañoo war di wax li xew ci réew mi dañ cee war di wax dañ cee war di wax ku amul courage wax ko nag ñi am courage wax ko boo leen mënta dooleel ci dëgg yi ñuy wax ngir yàlla maandu leen yow ni ngay kombaawee jàpp ni tey nii nga mën a kombaawee pour jàppale Ousmane Sonko kombaawel noonu kombaawel noonu mais lii ab gàkk-gàkk la boo xam ne tey dafa taas ci drapeau réew mi te dañ koo war a dindi war a dindi loolu mooy dëgg sëriñ si ñoo jiitu ci li yàq réew mi dañ koy wax te Ousmane Sonko mii guddi yi mu toll réew mi bu dee téeméeri sëriñ ñoo fi nekk quatre-vingt-quinze yëpp ci ànd quatre-vingt-quinze yëpp ci bëgg ci lii ñu koy def ñaanu ñu yàlla quatre-vingt-quinze yooyu Sonko jiite réew mi ñaanu ñaanuñu yàlla Sonko jiite réew mi moo tax ma ni li gën a bon ci àdduna bëgg ku la bañ mooy sëriñ ci yi bëgg gin leen bëgg ak bañ gi ngeen ñu bañ ci yéen rek laa ko gis yéen a bon yéen a bon bëgg gi leen askan wi bëgg ak mbañ gi ngeen bañ askan wi wekk gi leen askan wi wekk ak ñàkk a wekk ngeen ñàkk a askan wi man loolu damaa yéem léeg-léeg du ngeen rus sax du ngeen gis nga màggal gaa ngi jub si CRD ak CDD yi léppay am dañ koy amal di revendiquer seeni droit parce jàpp nañ ni. gouvernement bi yoreel na màggal gi ay droit yoo xam ne da koo war a jox ba mu mat mais droit yi askan wi ci hôpital yi droit yi askan wi ci assainissement bi droit yi askan wi ci dem beeg dikk bi droit yi askan wi ci dund gu seer gi droit yi askan wi ci courant bu seer bi droit yi askan wi ci njàng mu bon mi seen yoon nekku ci ñoom seen yoon nekku ci seen yoon nekku ci damay wax ak sama benn way mu nan ma tan yi da ngay attaquer laayeen yi ta xana xamoo jeune sëriñu laayeen yu ndaw yu bari xana xamoo Ousmane Sonko rek lañ bëgg la lañuy jappalé man ko ay buñ ko bëggoon genn di def ay vidéo di ci wax amul kan ngeen ci gis kan kan ñaar la ci gis ñaar Ibba Fay bu paparan ak Ibrahima Lo Lo lah la ci gis amul kanen te loo caw moomu mën naa ni malgré doomu sëriñ Abdoulaye la mais lim mën a apporter tey jii nii maanaam usmaan Sonko ana ñeneen ñi ngeen ni bëgg nañ usmaan Sonko dañ koy jàppale ana seen soutien ana seen soutien ana seen soutien bu leen nekk ay naaféq bu leen nekk ay nit ñoo xam ne seen xel yi da ngeen di nangu da ngeen koy nangoo tënk wala ngeen nangu nit tënk ko bëgg sëriñ bi bu mu tax tey jii nii maanaam nga gis luy dëgg loo xam ne waroon na cee àddu ñàkk cee àddu maanaam cofeel gi nga am ci moom wala cofeel gi nga am ci baayam tax tey jii bu ñuy wax ci moom tey doo apprécier dëgg gi di ci mer loolu daray àdduna jaru ko loolu ay tappale la ak féq la loolu ay tappale la ak naaféq la askan wi ñoru askan wi jóge ci njàqare ñoru leen mën naa koo wax ba ci ku mel ni njoon caw tey problème mu suuf si bi naan ngejj ga dañ koy dagg di ko jaay yéen communauté laayeen ñaata vidéo ngeen gis njoon caw génn def ko attaqué na fi jal sax ba saago ko ni day fen ta suuf soosu lan lay taxaw di wax communauté laayeen ñoo ko moom njaboot gi ñoo ko moom mais njabootug laayeen googu ñooy njabootug réew mi njabootug laayeen googu ñooy njabootug réew mi man loolu laa ta comprendre moo tax nag askan wi parfois dañuy xalaat ni neexul ba neexul mais yéen ay tekkatu dil ngeen alalu àddunaa leen ñor moo tax réew mi du ngeen ci wax man sama xel lol la may jox parce que ku melni ndion ciow ay nit yu bari nan intellectuel la nga xamni mom mo yor malika di doomu serigne abdoulaye ciow am ay relation yu bari ak ministère yi nga xamni mambay nya bin ko defee ministre de tourisme yow ndion yow ya dem inaugurer ko ministre ba daanaka teguñu ci ñaari semaine nga ànd ak cerno amadou parce que ci wàllu tourisme ngay yëngu def sen tournée européenne nan xuma lan diaspora man xuma sax lu ngeen doon doxé danaka wér am ngeen ko ci all bi pourtant billet yoy du seen alal hôtel yi ngeen doon teud gëm naani ne du duma ni gëm naani du seen alal motax rew mi du ngeen ci wax rew mi du ngeen ci wax ñun nak yalla dafa def ci ñun courage tuddal ñu suñuy doom ak ñaanal ñu sunuy jabarat julleel ñu sunuy baay ak julleel ñu sunuy ndayit du tee buñ leen waree wax dëgg dañ leen koy wax ñu bari dañ ma naan yow njoon pourtant bi ngay takk jabar moo la ñaanali jabar mën leen aloor mais njoon bi may takk jabar mu ñaanal ma jabar ma indi sama jabar ñu fas yéenee fondé famille amul njaboot mais su sunu njaboot googu réew ma ñuy dund xanaa wër sa mën a jag sëñ bi wuru cee mën a wax pour réew mu jag pour sama soxna soo su mu ma ñaanal su buñ ci amee doom ñu mën a dund ci réew mu jag mën a faju faju mu jag wax leen dëgg man seen yii ngeen nekk laa nekkul. amana ndayam sax sama baye ko ñaani won bàyyi leen seen man complexe dafa nekkul ci man luma bëgg wax dama koy wax man yoy la nekkul de amana ndayam ndayam sama baye ko ñaani won la wax amana sama nday baye ma ko ñaani won kon bayi amon, suñu baye amon bay dox ci deug de and ci dëgg kóllëre lay am ak mom muy bu deug dama koy wax njoon yitte ji mu jox 47 hectares communauté layen yi appel bi yitte ji mu ko jox ba nga xamni budé ñew dina dina dem rfm ci babacar fall wax fa wal fajiri dina ñew bir kërëm mu wax fa mais yitte joju lu tax joxu ko réew mi bu waxul deug wax fen duma jaral sama Bamel. jaralu leen ma sama bammel de kérok bi bay ngour deewee da nga ni sa doyen dem na balafi seeni caw bërki démb bi mu deewee danga ne foo ma saa toog mu nga sa ginnaaw dee na bala fi njoon dangay dee ba ma fi walla ma dee bala fi munu leen a teye ba dëgg duñ ko wax ñun du ngeen ñu bàkkaarloo bakkaar yoo xam ne dañ koy xalaat naj ko ci sunu biir xol yi man booy malika bokkuma ci su ma ci naree bokk yàlla na ma safara jël àddiya bu ma ko def li ma téye ci sama xol bi gis ni nii ngeen waroon a doxale fii te jii ngeen waroon a jox réew mi dama leen koy wax mu dugg ci seen nopp yi mais du ma ñëw fekk leen ngeen toog ma jox leen ñaari loxo jël sama bopp bi ruur ci suuf fekk maa ngi naan yéen ñu ko def duma ko def tey duma ko def suba duma ko def ginnaaw suba réew mi yitteelu leen tey yitteelu leen suba yitteelu leen ginnaaw suba billaahi wal kitaabi doo ay caaxaan réew mi ñoru leen réew mi ñoru leen réew mi leen loolooy dëgg tey ku ci mel ni Seydina fu mu toog ndaw ñi société bi ndaw ñi société bi saabu réew mi di tàkk doo ko gis sa bu rew mi di tak do ko gis looloy deug ñun mënu leen ñoo téré wax deug ay do tu ngeen dara askan wi nak ubbi nañ seeni bët di leen xol ta barki rasulullah gis ngeen bu ngeen dof dof lo. ñu ci bare bare bare bare bare bare bare ci yeen seen kër yi nañ fa duggal ay cocktail lolu mom ñun ñoo leen ko wax parce que du ngeen ay nitu dara fi serigne ci fi dul attaqué mooy ñi nga xamni gisunu micro duñ wax ci mbolo duñ wax ci dara duudu maktar mi mënon na ko baña a attaqué de parce que kenn musuko gis ci jang kenn musuko gis mu génn mais bam fi nango tok ni moy khalifa amna fi responsabilité am na fi responsabilité bu xamul li ci réew mi am na doom doomam xam na li ci réew mi ana ñoom jalcaw ñu ko wër dem leen ci xalifa bi ngeen wax xew njoon caw bi mu bëggee xalifa bi yëg problème mu 47 euh, hectares yi too tooxi duuna yi naan ñoom Mamadou Lamine a ko ci def euh, ak ñoo ko ci def ak ñoom Ndate Ndate moo Ablaye Thiaw ak ñoom Jal Ndione dafa bokk dossier yi dem ba ca xalifa ba gis ko wax ko problème yi lan moo tax Ndione solul dàllam dem ba kër xalifa bi wax ko fi réew mi toll mu wax ci sama gars yi ñëw leen ñu waxante dëgg ñëw leen ñu waxante dëgg gémmiñ bu waxul dëgg wax fen quarante-sept hectares yooyu tànk réew mi staabulul mënu leen koo jariñoo kon dox leen ci réew mi am jàmm dox leen ci réew mi nekk ci dëgg ngir néewul leen néewuñu leen ngeen faral Macky Sall néewuñu leen ngeen faral Sonko mais wax leen ci réew mi wax leen ci réew mi wax leen ci réew mi néewuñu leen ngeen faral ma Samba néewuñu leen ngeen faral ma Demba mais da ngeen di wax ci rew mi parce que seenu njaboot do nga fi nek tayaw yow doomu seigne ablaye yeb buñ tëjoon seen gat ci rew mi yow woro ci tej sa gat yow ñoon jaw parce que nek nga fi maire administration xam nga lu ci bari nu muy doxé dëkk bi ni muy doxé xam nga ni jékkul jaadul nii dëkk bi di doxee xam nga ne jékkul jaaduwul jékkul jaaduwul waaw jékkul jaaduwul li leen ci teree wax nag du lenn lu dul defar seen bopp kase lool dongo leen ci tere te teree wax kase am leen courage parce que yi ni mo ñuy pousser ñuy dem ba wax lo xam duñ ko bëgg wax parce que taxaway bi ngeen am ci ñun dafa ñaaw taxaway bi ngeen taxaw ci suñu kanam dafa rafetul billahi parce que mënu ñu ñu yeen ay kilifa ngeen yo xam manam yeen yéen seenu kilifteef du lenn lu dul jàkka ja euh, takkub sëy sijaada ga tuddib dom jullem niw yeen seen responsabilité ci dëkk bi lool dong la jàngal nit ki ay kaamil sax du seen responsabilité takk say tudd doom julleem néew takk say tudd doom julleem néew sëy bu tas sax du ngeen ko arrangé bàyyi leen ay caaxaan suñ dëgg yi dañ leen koy wax de boole ci ay danku daqaar yu weex xat parce que du ngeen ay nitu dara da ngeen ñoo setan ban xamni setan ci da ngeen ban xamni setan ngeen ñu ndegam na xamulen li leen yalla defal ko ci wo di wax sax li ci rew mi dana ay luma ci man man bari na kilifa yo xamni sa tiaxan limay ndaw ndaw ndaw ndaw man limay yalla defal man xeebuma barki sayidina muhammad bari na ay sëtu Seydina Limaamu yoo xam ne woo naa leen bi dëkk bi amee ay jafe-jafe billaahi wal kitaabi mais koo ci waxal lan la lay wax man duma xalifa général duma porte parole billaahi ma xam ni ñii ñooy ay doomu xaram billaahi wal kitaabi amu ci kenn ko xamni ci yeen di nga dugg ci biir bammel ta yalla du la laaj li ci rew mi amul ku ko wedd nak deewon ci sa kanam dina len laaj li ci rew mi ceetaan gi ngeen ceetaan rew mi ni ngeen ande politiciens yi lu ngeen xew la ñu tibbu jox len ta askan wi lu nu xew la ngeen tok len askan wi lu nu xew la moy hôpital yi ñun soxla wuñoo ngénte ba yaakaar ci état soxla takk jabar ba yaakaar ci état soxla wu ba yaakaar ci état soxla wu defar suñuy kër ba yaakaar ci état xam nga état lan lan yaakaar ci moom dund gu yomb dem beeg dikk bu baax assainissement bu baax am xëy école yu baax sécurité dëkk bi leer naññ ñun lool rek lan xaar ci état waxleen ci réew mi. ana bayi njim ciaw mi dan wax senegal gi du tak dem na inde dem na nangam he ay ci ay xereum rek lañuy yëngu kenn ku ci nekk yaangi jema liggey sa morom pour mu top la lo wax mu ni waw billahi yoy dina ci ñew serigne si ku ni dañ leen dun leen bayyi dinañ leen man leg leg sumay xalaat sax yeen jëf yu ñaaw yi ñi def moo may pousser may parce que dun ay nitu dara barke alquran ay xereum kat lan bu ngeen xamone yu ñap man booy malika li ma ci xam billahi wal kitaab bi am na loo xam rus naa koo sax wax ñoo xam ne nee na ay sëtu Seydina Isaa lan ay sëtu Seydina Limaamu lan ay doomi Baay Ablaay Caw ngeen ay doomu Maam Babacar ngeen ay doomu paparaan ngeen ci lu bon rek ngeen nekk barke Alxuraan ku ci nekk yaa ngi uti buxaaba pour mu liggéeyal la sa moroom mu topp sa ginnaaw yéen a bon motax ndaw ñu yewu leen gis ngeen ñi ngeen di gis genn wàll gi seen kër bayyi mirasum ko mirasum seen kër bayyi barki alquran seen bayyi ni lañ tëdd ci bammel dañoo banku ngeen ku dee buñ ko tank mirasum ko du tali ci bammel ba ngeen suulee ba pare da banku def ni dem leen mirasi seen bayyi dem leen mirasi seen bayyi dem leen mirasi seen bayyi loloy deug amuleen benn njariñ ci réew mi amuleen benn njariñ ci diine ji ay kilifa diine yoo xam ne seen bàyyi du dee ban miraas ko ay kilifa diine yoo xam ne ah bu buñ waree jige ak ak ak xalifa général sax dañuy gaaw daw liggéey ko mu gaaw dee ci war a nekk porte parole gaaw di pare ji boppam ay dëmmu ngeen di ngeen di rayante dañ koy wax waaw dañ koy wax ba mu neex ay dëmmu ngeen du ngeen niti dara du ngeen ay nitu dara ay dëmm ngeen da ngeen di rayante wax leen ci réew mi jafe-jafe yi ci réew mi wax leen ci wax leen fi réew mi toll foofu lañ leen di xaar Ousmane Sonko deful ci réew mi lu tax tey ñu koy teg jafe-jafe yi muy dund defu ko fi te yéen ñëpp a ko seetaan deful ci réew mi sàccul alalu réew mi kompaloowu fi te defu fi lu tax tey ngeen di ko seetaan. doomi xaraam yi ngeen doon réew moo xam ne am pétrole am gaz am phosphate am malbu am calcaire am thorium am lépp tey ay ressources naturelles minières yoo xam ne tey mën naa développer réew mi ngeen tëj seen saru ndey yi kenn jéemu cee ubbi xam-xam di wax amu leen xam-xam duur rek ngeen di def bu ngeen toogee ah ñaan guddi ñaan bëccëg ja ñaanu diw tay ñaanu. maa ngi gis fan yi démb ak tey photo sëñ Ablaay yi ñu ngay sati rek ñaari at ba sëñ Ablaay gaañoo ba léegi waa léegi appare ah communauté laayeen daa avancé wala daa dellu ginnaaw xool leen rek xool leen ñii ñuy dund amalul ñu njariñ ñuy dee amalul ñu njariñ ñun suñu xol yi ni muy tangé ci réew mi billahi ni ngeen di tëddee ci seen kawlal yi tok ci seen sal yi di ñu sétan seen xol yi di lé ngeen jël yeen ni ngeen mel dafa ñaaw ko ci gis nak mu nga jiitalu koll bon da ngeen bon da ngeen yes amulen amu njariñ ci réew mi barke alcorane njariñ amu ko ci réew mi mais gis ngeen réew mi bu ngeen seetaanee ba mu des ci loxoy imbécile yi billahi wal kitaabi ban sañ ta taxawal sunu groupe boo xam ni ñëw sénégal moo xam yoonu suuf la ñuy jaar moo xam fu ñuy jaar ñëw faak suñuy fetal fekk leen ci seen biir kër yi dëgg seen nday ba ngeen xam ne bàyyi laay jàpp ak julli la ko la ko yàlla ni mu sant leen koog def lu baax doomu fu leen ci dëkk bi dara di def ay sàcc ngeen suufu malika yépp jaay ngeen ko yéen doomu sëñ Ablaay yi nekk Malika njoon caw ak ñépp amul kenn ku ci mën a waat suufu Malika boobu première tranche bi biñ koy dagg mooy fi jënd suñu kër googu ko euh, ginnaaw kër maalaw ndiir suñu kër gi secteur boobu ay ñoom joon ak ñoom bàyyi nguut yi ko doon jaay ca lan tedde Malika lan na ci am nee nañ jumaa lan ci tabax ak téréwoo loo xam loo xam ne ëpp na deux mille terrain yoo xam ne jumaa ngeen ci euh, réceptionné euh, defar ci péréwoo ana xaalis ba yéen a sàcc ndeyam defar ci seeni kër alal ji yéen a ko sàcc ndeyam defar ci seeni kër moo tax du ngeen wax ci réew mi yéen ñëpp lañ yor seeni dossier Dan jaay nday suufu malika yi di dem ba keur massar diko fa cagatoo sa gel bobu da nga yakar ne xamuñu ko sa gel ba nga amoon keur massar dan fa yóbbu nday xaalisu malika bi mairie keur massar am mbedd bu mu jakarol sa bir xam nga sira tay lenay tiaxan sen dossier yaagi fi comme nak affaire domi ram ngeen di jaay ñu leen ndegam mak ndegam mak moo xam ne tey jii benn tànk baa ci bàmmeel benn tànk baa ngi ci ci ci ci buntu néegam ndagam mag ñooñu ñoo mën a doxaan seen ndey sàkkantuma ndaw ñu am confiance ci àdduna bi du ngeen cottu ndeyam da ngeen ñoo seetaan wax leen ci réew mi wax ci réew mi réew mi yitteelu leen jafe-jafe yi nekkee yitteelu leen dañ ciy wax bu ma kenn woo nag li may wax xam naa ko li ma benn waaye naan bo booy Malika yow damay gis léeg-léeg wax ba pare di araftu man dama ma ne ko dama leen xam parce que amuñu jom gàcce du leen rey léeg-léeg nga téye nit ba xolam sedd doom euh, euh, euh, surtout bàyyi laa yi léeg-léeg ma téye fi nit ñax fekk bëgg néeg baa ngi seetaan damay pare rek mu dun dara dun dara amuñu ay conseil amuñu ay conseil jafé jafé talibé yittélu len sen bop mo len ñor tay Ousmane Sonko programme bi mu indi ci réew mi tay di programme bu am solo mais yeen ñoñu ñëpp parce que tay japp ngeen ni rew mi ndaw ñi ñoo am am xey ngir lan jàngi guddi becc ak ñaan guddi ñaan ak loolo tax yeen bugul bugguleen ndaw ñi xey barki sayidina muhammad parce que japp ngeen ni bu rew mi bu rew mi développer ndaw ñu am am xey di xey nga xamne amuñu luddul samedi ci manam samedi ci ngone ak dimanche ngeen ni kon duñ ñew ñaanu Baye sayidi ciow duñ dem ñaanu paparan duñ dem ñaanu Serif duñ dem ñaanu seigne Ablaye euh, duñ dem ñaanu Baye babakar ah euh, duñ dem euh, ñaanuk mam ala yeena iya moy ay bass abdou khadir yi ñu ngeen bu rew mi amem xey kas rajab nit ñi dootuñu ko dem magal nit ñi dootu seen màggalu bàyyeeg seen euh, magal gu mag nit ñi dootuñu ko dem yeen ñu doxan lu tax ñun ñu wërbeetiku fas jakarlo jàkkaarloog yeen dem ba xamni yeen ay nit ñu ñak xel ngeen parce que senegal dafa am lo xamni ñun suñu culture la àdduna du neex ba wat jël ko sànni àdduna du neex ba nappaaje ko mais ay dof ngeen wi ngeen war a ñëw ñu am xalaat am sunu calendrier tamxarit bu ñëwee mag Sénégal nan lay doxale korité bu ñëwee Sénégal nan lay doxale tabaski bu ñëwee Sénégal nan lay doxale màggal bu ñëwee Sénégal nan lay doxale gàmm bu ñëwee Sénégal nan lay doxale ngeen war a indi seeni xel ñu tëgg suñu calendrier mais ci lan xam ne yéen du ngeen cottu ndayam yéen ñi parce que ci ngeen di amee xaalis seen jëw nday seeni koo yi bàyyi sax ngeen naan na bàyyi seen bunu maam katt ngeen ndayam tàngal suñu xol yi du ngeen cottu ndayam yéen man lu ngeen bañe sonko la xamul lu ngeen sonko def la xamul xana ñew ni seen talibé maam yi seen talibé baay yi seen talibé yi bu ma toogee ci réew mi dina fexé ban dundu dundu ko jatt yeen loolu ngeen bañe sonko lu ngeen bañee sonko geyna on employé domaine 15 ans musuma sacc fukki deureum ku gis banen keur gudul keur gi jeulal loolu ngeen bañe sonko lu ngeen bañe sonko kalaasu mbàkk yu fay dan ko ger ay 100 million ay 500 million sun ko bañ du ko lek liggéeyam lay def lolou ngeen bañ ko bañ lolou ngeen ko bañee lolou ngeen ko bañee ñaar la gis ñu jël seen responsabilité muy eh, eh, muy Iba fay ak Lo Thiaw loo sax gëj naa def ay vidéo xam naa liggéey bee ko tënk parce que diaspora bi moom yombul mais nii fay Faye jëlee ay Iba Faye pourtant yàgg naa wax amu ci kenn kuy wax ci réew mi pour réew mi dal amu ci kenn yéen ku ciy wax ah moo tax bu ma déggee ñu naan ay nit naan ma ay njoon intellect ku ma ko waxati rek mag toj intellectuel tay du intellectuel ëlëk du ko suba du ko ginnaw suba parce que intellectuel bo mané gis li ci réew mi di ab serigne am ay talibé mané sétane li ngir sa poste ngir sa bop bon yena bon barki alquran yena bon sunu wax ji ñuy wax nak amuñu ci benn tombe buñ ci regretter amul billahi wal kitabi bun amon lu gëna ñaaw li ñuy wax du ngeen dara motax ndaw ñu góorgóorlu leen ta fonku seen nday yi te xam ni ñi seen sante yi ñu sante tun tun, waaw tun gu reey gu seen nday reey tun motax ñu sante sante yi mooy kalaasug bas gi doomu bu ñëwee toog di ñu gaarawaale di ñu wax lu ñaaw dun dëj mais réew mi dina bax Dakar xamna fa sa ñaari kër supermarché exclusif bi ci beneen bi Bass Abdou Khadir am na fa kër Sacré-Cœur am na fa kër këram gi ci gi ci gi ci supermarché exclusif bi ci beneen bi biñ ko tàmbalee biñ koy tabax daanaka matul huit mois laax kër ga pare na ñu def lépp weex kon xam naa kër ga nga fa daan indi sa parado bu weex bi kon xam naa kër ga xamna keur ga digeunte mak supermarché bi ben keur ci dox ak ben mbedd keureum ngay njëkk jot jot supermarché bi ni bo taxawé ni ci tali téggi pont bi pont baangi ni amna tali bu nekk ci suufam bo ci taxawé ni jakarlok supermarché bi ni keur basa ngi ni ak keur ci tege ak supermarché bi mbedd mo dox seen diggante bàyyi ay tiaxan du ngeen wax leen ci réew mi ay sàcc ngeen ay sàcc ngeen seen dund gi tax dund gi seer seen dund gi stable gii ngeen di dund te xëyu leen ndeyam gontu moo tax yëf yi seer wax leen ci réew mi wax leen ci réew mi wax ci réew mi askan wi buñ dee nekk ci ay jafé jé damay damay gis yenn sunu malika yi ndaysan parfois bu ndaw ñi di manifester ma gis leen léeg-léeg yenn classe gi damay ndaysan damay dama leen di yërem damay waxtaan ak sama ben euh, copain brigade semaine passée ñuy waxtaan makoy wax problème yi nek ci seen kanam ñom yi nga xamne mu ngi ci seen kanam te ñewagul mais xamagun ko actuellement ni makoy koy décortiquer problème yi ni ko li ak li dañ koy dañ koy dund bu nu àggee ak fi billaahi ci sonn ngeen jëm yéen ñooñu ñépp parce que tey la ngeen waroon a jariñoo tey taala gajagaak waa caween parce que bu ngeen nangoo tey ñu sedd leen ñoom ñooñu ñépp te yéen seen alal mënu leen cee jot ñii duñ dara dunu darah barke arhoran lima ma gën a metti caw doomu xaraam ji ngeen jël nag def ko ab nitu yàlla boo xam ni kooku xam nga kañ la yàlla jël sirru ba ba mu rek taala gajaga di jaay ci alalu malika di ko jox mooy lekk ay ñoom Cheikh Mbacke kenn mënu ko Cheikh Mbacke du alalu malika suuf si Seyna Laay du ko magu magu mom waxuma ko koko mom da Aline Diagne du ko waat Matar Thiaw moom waxuma la dara mais 37 hectares sax moom daa demoon diwuti wuti ay promoteur ay naaru libaane moom jot naa encaissé mbay laay caw ci la am 4-4 noonu yéen ngeen sëriñ si man ma weg leen man ñii ma weg leen fu ma leen du ma leen wet mukk ci àdduna ñoo xam ne buñ sañoon ma torox ñoo xam ne buñ sañoon duma am kër gu baax ma weg leen man daray àdduna jaraluma ko duma leen wekk fu ma leen fekk duma leen wekk toroxal ngeen réew mi jafe-jafe yu réew mi am jafe-jafe yu réew mi nekk seen loxo ngi ci moo tax du ngeen ci nangoo dugal seen xalaat du ngeen ci bëgg a dugal seen xalaat dañ koy wax ba mu cuq dañ koy wax ba mu neex motax ku ci ku ci ne am nga asam lek gis nga bay problem caw problème mu tank la am daa toog a toog ba sen yakkat seen asam yooyu dootu len jariñ dara dara dara dara dara dara dara dara dara dara xana ngeen ñew boy malika yeesalat len ke boy malika du lek ger jaralu len ko fen jaralu len ko melam man sama ñak lay dundé sama ñak lay dundé bokkuma ak yeen man yaakaaruma 47 hectares yi 37 hectares yi jox Malika yaakaaruma ko 20 hectares yeen len di jox yaakaaruma ndayam yeen ko yaakaar yeen motax ndaw ñi bu ñew won ay yar la ñuy wër di leen wër fu ñu leen gis tok seen ñi dag ay jibi ci wak duñ bayyi kenn kun dajal toj duñ dara duñu dara ma ngi gis fan yee passé benn femme ndeysaan nan seyna isa moo ko yónni jigéen ñi gerefaas yi ñuy teg nangam nangam ma ne ko duggal caween ay ñoom laay ak ay jaara caw ak ay ndey seen yi ay dañ koy teg ba ci seen xottu yi waaw seyna isa moomu la yónni boo demee ne ko sëfa yi muy tere ay sëtama ci jiitu ay jabaru ma ci jiitu ay ñoom magu caw yi demal xol leen ñoom ñëpp la seen jabar yi di suufa demal xool leen ay ñoom paanaak njàmbeek mbay laayak ñoom ñëpp la seen jabar yi teg ay cheveux mu Mamadou Lamine gis ngeen ko surtout Seydina Limaamu direct la maam Babacar ay baayam gis ngeen ñetteelam bi amee laay appel këram dafay xawaare woo ay bongomaan nekk leen ay nit ñii diine ci bàyyi laay woote ak gin woote bokkul de <laughs> billaahi du ay caaxaan bokkul bokkul li bàyyi laay woote ngecc nga bokku ci appel bokku ca ay ndigala yi dara ci bokkul xam nga bàyyi laay la woote yeesal leen seen njàpp mi aj ko ba ci óom yi sax leen ci tudd yàlla lu ngeen moomul baleen ko fa bu leen dugg ci ayu seen yoon nekkul mais bu ngeen ayu ayu seen yoon nekkul nag la bàyyi laay wax mais ayu réew mi seen yoon a ngi ci parce que ci ngeen di dund ci ngeen di dund ci ngeen di dund léegi caaxaan yooyu nag ñu teg ci ginnaaw Seydina Limaamu moo waral dëkk bi duñ ci wax duñ ci wax tey duñ ci wax ëllëg parce que ay caaxaan la bu doon dëgg la dañuy wax ci dëkk bi dañuy wax bu doon dëgg la bu doon yi ñu créé dëgg la lu bàyyi laay nangu la lu bàyyi laay reconnaître la dañuy wax ci dëgg bi parce que dëkk bi ñëpp a nangul Seydina Limaamu ñëpp a gëm bàyyi laay amul lu ngeen ciy def lu fi bàyyi laay bàyyi ko nit ñi gàntul leen ko mais dafa nekk seen coobarey bopp dafa nekk seen coobarey bopp man moom duma leen wàcce tey duma leen wàcce ëllëg yéen am ngeen problème yéeg ngeen ci ràppitu sàmbalaw be doomu xaraam yi lekkkatu ger yi ngeen doon xàmmeewu leen alalu jirim ak alalu askan wi xàmmewu leen ndeyam xàmmewu leen lu ngeen moom ak lu seen morom moom xàmmewu leen ko doomu xaraam yi ngeen doon ah sëy naa limaamu cër bi mu am ci yàlla martaba bi mu am ci yàlla doomu xaraam yi ngeen di ko tuddoo di ko mbuboo xàmmewu leen seen jabar ak seen jabari baay seen jabar seen jabari baay seen jabari taalibe ngeen yemale doomu xaj yi ngeen doon ah, doomu xaram yi yéen nan ngeen mën a nekkee ay doomu kilifa ah doomi xaraam yi yor ay jeeg baxu ci seen biir kër yi ñapp ndayam dugg ci seen oto yi di wër di kattante kër masaar ak yëmbal ak yi géej ak sibi xotaan ak doomu lëfal ndayam yi fu ne ngeen am fab coro di wër di kattante seen cottu nday du ngeen dara doomu xaraam yi moo tax njub gi Ousmane Sonko ci woote ci réew mi du ngeen ko du ngeen du ngeen ci mën a ànd parce que jàpp ngeen ni tey Ousmane Sonko bu toogee ci réew mi fexe ba réew mi tey am am xëy ñii di liggéey guddi ñii di liggéey bëccëg jàpp ngeen ni tey bu ngeen di aajiboo wala ngeen di ngejjigaak di ngorab di xuntuma di ba di ñaanuk bàyyi say di caw ak ñaanuk paparaan ak ñaanuk maam ubbi seen ak jàpp ngeen ne askan wi du ñëw yéen a toj seen cottu ndey yéen a ñu bañ yéen a ñu yéen a torox tànge yéen a ñu yéen a alku mais yéen la yàlla alak billahi yéen la yàlla alak parce que yàlla al alkaande paasewul ngeen dund ba am at yi ngeen at am ni sëtu maam limaamu la sëtu sëñ Tuuba la ah, sëtu borom daaru la ah sëtu Seexu Tiijaan la ah sëtu Alaaji Malik la sëtu Baay Ñas la nekkoo ci dëgg sa jabar di xeesal say doom di naan sàngara ngay dundee ger ay xale yu ndaw toog di xott sa cottu nday te mënoo ci dara torox tànge mënta paase loolu yéen ñi torox katt leen seen nday yéen ñi a torox yéen ñii doo nga doomu xaraam yi yéen ñii doo torox torox tànge mënta paase lii ay mag yi jëmm nekk ay doomu kilifa wàcc seen yoon ay xale di leen ci teg di toj seen cottu ndey te mënuñu ci dara yéen ñii doo torox ku ñu jiiñ torox tànge xam nga ni da ngay duul ñun toroxun ñan ñoo torox ku torox wax leen wax leen ne leen ñu waxante dëgg rek yow mi ni sëriñ nga yow mi ni sëtu ku baax nga yow mi ni doomu ku baax nga yow mi ni doomu soxna nga teguwoo ci njub di dundee ger ah di sàcc alalu askan wi di katt jabaru jàmbur yi nit ñi xam ko ngay kompaloo ci réew mi ñu xam ko jàkkaarlook yow di toj sa cottu ndey ku torox kii toj sa cottu ndey moo torox wala yow yow mi ñuy toj sa cottu ndey torox ah waxal ku torox ku torox waay waay yéen a alkaande Yena pun bon du ngeen dara tus du ngeen ko yena yak rew mi jafe-jafe yu rew mi am rek yena wax len ci rew mi ta bu problème souf amé doomu kharam yi kenn ku ci nek jug mu jaral la lu nekk alalu communauté bi nangam nangam mais alalu rew mi yak du ngeen ci wax doomi rew mi dé du ci wax ñaata laye na dé ci manifestation yi amna ku asalem rek bi passé le premier bin attee sonko compte mars ab laayeen la dé kèn du ci wax té pourtant ci souf ci la bokku souf soosu ngeen di xex nan gi la laye ngi wax leen maa ngi gis nak ay nit yeen li ngeen bëgg nak duma ko def yeen ñi may wo naan ma waaw njoon na nga wax ak moom intellectuel la nangam sangam njoon duma wax ak moom ray ko de duma ko ray day jël walam comme ni ma fi téewal ñoom seyna lay di toccott ndayam njoon day jël walam damay toccott ndayam momit day jël walam ba mu duma ko ray de xana kon ma nek doomi ram kon ma di xaj xana ma di xaj kon duma ko def duma xaj ñoon jaraluma sama bammel bayam sax jaraluma sama bammel seen mam seyna limam wa yow dama jaral sama bammel yeen xana da ngeena dof yeen li yalla diggal bàyyi laay moom la ma diggal li yalla diggal bàyyi laay moom la len diggal li yalla diggal serigne touba lol la len diggal dan ñoo gëna jeex ci yalla ëpp ñu jom gën ñoo ragal yàlla donga tax ñu àgg fi ñu àgg doomu xaraam yi nekkub sutub bàyyi du tax fu ma la gédd waa yow ana imaam muudu maxtaar kuy maamam seydinaa limaamu geddu fi jabaram ñaata at fukki at xawma <laughs> imaam imaam yaa ma man nag loolu de mënuma ko moom waaw loolu daal munu ma ko moom lal bi daal xam naa ne fan yi sonko kiyee moom man gedd naa ko dëgg rek laa wax man booy malika fan yi sonko kiyee moom nee naa ko di ci yam ak ñoom aana moom di ci yam ak ñoom de loolu de man naa ko ci neuf ans moodu man de imam mo gëna bon bokku na ci imam mudu maktar nga xamne yow nan lan joxe communauté layen 47 hectares nga war ci meuna indi sa xalaat nekk fee yoof di xulóog wa yof ah nan len da ngayena salté juma ji ngeen di ki juma ji ngeen yow loy xulo yow ñi wër juma ji 47 hectares jox nañ ko communauté layen indil sa projet xol tay yof nan lan ko meuna améliorer nan lan fi meuna jëlé ñi nga xam seen kër yi dafa xat way bi dafa ki ñu sa décentraliser len ah wax leen deug amu leen xel amu leen mayin ñew leen di ñu deglu ñu tegg leen ci kot loloy deug ak reey do nga leen japp nak ta day rek na ngeen de def day yalla yalla yàlla seen warma du da ngeen di jema jaay di di da ngeen di soufel yalla yalla du ku ñuy soufel yalla du ku ñuy suufeel kuy deug al min rabbikum dëggal yalla te da ngeen ko soufel ni du ngeen ko wax dëgg dëggay dëgg mooy yàlla te da ngeen koo suufeel nit jéemu leen a xam ku ko moom seen yoon nekku ci du ngeen ci wax du ngeen ci kii du ngeen seen ngañ nekku ci moo tax yàlla toroxal leen boole leen ak ay xale yu ndaw lu ngeen reere xam nan ko fu ngeen amub gel xam nan ko fu ngeen dugg xam nan ko jàkkaarloog yéen di toj seen cottu ndey yi te mënu leen ci dara sama gaa yi damay laaj ma ne ñii ak ñun ñan ñoo toroxwaay tontu leen ñu. ku torox te yeen ñooñu ndayam ku ci febar nag ci avion nak lañ lay dugal indi la faj la ci avion lañ lay dugal ndayam faj la ku torox way ah xawma xawma xawma buñu ñu xawma buñu ñu dee de mais suñu dundu gi wax deug ci yalla toroxun mom toroxun de xawma nak buñu ñu <laughs> mais yeen mom li ngeen def fi ak torox te bu len topé malaaka yi ñap seen nday dama bëgg ngeen xam ne ëllëg bis ci yàlla xamul kii doomu Seydina Limaamu la ak sëtu Seydina Limaamu yàlla xamul lool de ay seexu Ceenaba ak Sëñ Tuuba ak yooyu déedéet Abdullahi la xam jaamu bi yàlla bi yàlla lool la xam jaam bi jaam bi topp ay ndigalam jaam bi bàyyi ay tereem jam bi takko itaqullah jam bobu la yalla xam waw jam bi bëgg yalla ci jam yi jam bobu la yalla xam mais xamul la sëtu sayna limam laa de ngeñ ga CRD yi mako don def appel bi mako don ki ma don taxawu appel ak yoy yalla xamul lol de xamul lol de lu leer la leen di wax man boy malika mi bu ngeen ma defee am noon da ngeen di sonn jéem leen maa bëgg jéem leen maa bëgg na ngeen ma jéem a def ci seen xol yi xaj xajal leen ma ci te xam ne man seen njariñ dong laa leen di wax malgré nag moom dama réew man dama réew ba dof man dama réew ba dof waaw waaye xaj xajal leen ma ci seen xol yi parce que yéen ku nekk ak yéen réew parce que réewande mooy lan té mak mu nekul ci deug di tek ci deug réewande moy lan mag mu fen nga ne ko fen nga réewande moy lan mag mu sacc nga ne ko sacc nga réewande moy lan mag mu ba dem ci jabari jambur nga wax ko réewande moy lan mag mu bayyi jabaram di wër di ciagatu loloy réewande kon dama réew ba dof ku fi sacc ñu wax ko mënu leena nek ci dëkk bi politiciens yi di ñëw seen kër yi di añandok yeen di nanandok yeen ataya te du ngeen wax ci dëkk bi bu politiciens yi toñé askan wi jël justice bi corrompu len jël police bi corrompu len jël gendarmerie corrompu len du ngeen ci wax ay tiaxan la wax len ci dëkk bi wax len ci dëkk bi ana mamadou lamine mi doon wax ousmane sonko ñi and ak yaw nan xamne yaw li lay fal irniye ya la mamadou lamine parce que tas nan ko de lo ci xam kay wax kay way ana nga neena len bu seigne bass dewe ban dejeul ko ba ñetti fan ya passé ba mu mudu lamen fimne mu ngi ci bopam fimne dudu makhtar mi sa bu julle mu ngay ñaan dudu makhtar de bam tok ci khilafa gi mais man nak ma def porte parole rek parce que ku meuna wax la man man mom bis bu dudu dewe nga tok rek nak ma def porte parole man man mom ku meuna ngappé ku la ta aduna bi xam nan ma waxuma la communauté laayet mais aduna bi xam ma man mom nak ma def porte parole rek bu lay ni mom dootu ñu joy lu am ci rew mi dina genn wax bis bu duudu dewe nga tok nak ma def porte parole saa ci xande lima leen di wax ni ba señ bas de xam nga sëñ bas mo mo, mo, mo leen magon tay ji bu bu bu sëñ bas doon dund bu duudu dewe señ bas ay toog mais comme mom yalla daa def yoy mom ñuru ko sax señ bas fim ne mo ñaan yalla ni ko teel ma ray man yi man bokuma ci man yi bokuma ci de ak yi àttanuma ko motax ñaata at yeen laayeen ni señ bas gisulen ko parce que àq yi la àttanul te bu doon génn di toog ak yéen day lekk ger di ngeen jël alali sàcc jox ko ko moo tax mu fatu kenn gisatu ko ci ba ni mu wujjee baroomam ba mu demee nag ba mu ba mu dee nag ami laay da koo ni ko yaay sama saaja ban mu pooj ñaari pooj yu dëgër ci biir néeg bi ni ay waay yee maa fi sës mais mumudu lamin yàlla na nga ko fekke boobu de la la booy malika di wax yàlla na ko fekke waaw mu ngay lijjanti ak xilaafaam de <coughs> di xaar duudu maxtaar dee ba mu toog fi ne nii te te wérul de yàlla xam na ni fi mu ne wérul wérul wérul laa la wax kaa leen wax ci réew ay doomu xaram ngeen yéen Mamadou Lamine mu nga ca visa dilu dilu visa ya Mamadou Lamine mu nga salu ne bu waree dem fi ne ay ay ay ay jàng moo xam e, Europe bi wala Amérique mu ngay xool ñu mu yóbbu seet ñii ñu nga sa suuf sa njoon caw moom fi mu ne mu ngi xool nu fi mu ne juboo nan gaa yaa ma naan hii sa gaay juboo nan de moog bàyyi njiin mam doon wax man sëy naa ma njoon bu ma kenn waxati waxu sëy naa laay bu ma kenn waxatu waxu bu ma kenn caw laay bu ma kenn maam ala xam nga booba lu mu bëggoon a ngeen yëgal ko sëñ ablaay geeg yooyu bi mu gaañoo moom daa bëggoon sëñ ablaay ñu suuli ko malika ngee jega loolu la bëggoon man sax loolu ànd naa ci parce que ngéej ga dafa war a mën a amee armeel parce que ñoom ñii tey kun ci suul fee da nga di nga mer man gëm naa loolu kon suuloon fa seen bàyyi ñu mën leen faa suul <coughs> dafa dagan seeni cawa ngoogu gis ngeen fa ngeen ko sànni mais na ngeen gore rek ay ñoom mag yooyu yéen waa yoof na ngeen gore de gis ngeen nin kombaloo ba sànni fee seeni caw gis nga nan fa sànnee seeni caw sànni ko sa armée lu Malika yi ni fii leen koy suul kii kenn du ko yóbbu yoof mais yéen it waa Malika <coughs> yéen it waa Malika bu ngeen dee nañ leen suul foofu de lu leer laa leen di wax waaw waaw nan ngeen mën a jëlee taalibe Seydina Limaamu mu dee Malika ngeen yóbbu ko suul ko yoof ah surtout Limaamu dee ngeen bàyyi ko Malika damay damay nettali la xewoon démb de bu leen ma tax a wax baax na wax leen ci réew mi. Ousmane Sonko nekkul grève de tey nekkul grève de la faim ëllëg ñi koy wax ñi dafa woor ba ngoon bugg a dog ñu ne ko sax njaboot duñ la indi lekk Marème fay jub pàkkar ñu ne moo koy toggal Sonko ni di lekk nday lekk wax leen dëgg gi Ismaïla Madior Sonko dane na ko ñu waa këram di indi lekk ngeen ni du ci dal yéen a koy joxug lekk Sonko ni du lekk seenug lekk looloo tax Sonko nekk ci ak xiif gu metti Nek ci ak xiif gu metti mais songo grève de la fin tay grève de la fin suba tabarki rasulullah wir yaramam gi di ko jamarlo ak yeen bam saf te billahi wal kitabi ñoo leen ko wax ñu ngi leen di xaar xamu leen sax liñ leen di wajal ci magal gi yeen xamu leen ko sax neewon nañ leen sonko japp sonko du événement Macky Sall japp na sonko du événement mais té koy problème yéen ñëpp am problème fi ne yéen ñëpp am problème parce que yéen ñun suñu yoon nekkul ci seen sombi boobu lii lépp nag li ko waral ñàkk ndey ay kilifa diine yu jël seeni responsable parce que Marème Faye dañoo dañ koo fal dañ koo fal nan lañ man a falee jëkkëram moom mu nekk ci réew mi di def lu ko neex di ger ay juge di ger ay policier di ger ay gendarme ut ay nerveem jox leen ay armée amul benn sëriñ bu ci ñimee yooyu yàbbi te yéen ñëpp a li ci réew mi moo tax ay taalibe Amadou Ba ngeen dama lay wax benn affaire de gis ngeen doomu sëñ Ablaye yi bari na ñoo xam ne ay taalibe Amadou Ba lan billaahi bari na ñoo xam ne ay ta ay taal ay taalibe Amadou Ba lan ñëpp genn wàll gi yëpp xam kër Amadou Ba. xam nañ kër amadou ba de ak ño xam amadou ba pular xam nañ ko de parce que nangu ñoo xey nangu ñoo gont doomu kharam yi kay di ngeen meuna top keul production yi saway neena ma <laughs> ak bay faalu doomu kharam yi mané ko bay faali yi ñak jom rek bay faali yeen bali muntaha pourtant day tek sofo yàlla mi ñu tiim xam na ko njabootug sëñ abdulaat gi yéen xanaa gisuleen leen ñaanug sëñ abdulaat gi eh, eh, eh, njabootug sëñ abdulaat gi yi ñuy def dañuy xawaare ñoom day xawaare lañ koy def yéen Baay Faal yi lu leen waaye wax lu dul jël leen ay pono taxaw nday bàkke yi ñoom sàcc duggati Tuubaa di leen di nax def leen loolu ngir jëmmi sëñ Fàllu Faal seen doomu serigne ba nga xamne bamelam bamelam mu nga France sëñ fàllu fall tay ji France gee mu tëdd na sañ a tay ba muntaxaa mën a ñu duggal ko ci jet privé yobbu ko France diko faje bayi len seen tiaxan yi ngeen nekke bu len indi ci rew mi guerre civile seen yi ngeen di def man na indi ci rew mi guerre civile de dem ba ku tak barasa Pastef ngeen tàgg ko bayi len ay tiaxan ay tiaxan baxul nit du jaaxaan di saw boppam nit du bàyyi leen ak tooñ bàyyi leen ak tooñ yii ngeen di def bu leen ko Muntaxa Mbàkke digalee ànd ci ànd ceeg yeen yàlla àndu ci de ak tooñ la baleen ak tooñ baay faal yi bàyyi leen seen caaxaan yi bu dee dëgg-dëgg ay baay faal ngeen ku am ak taalibe ngeen bu ngeen dajeek seen nawle bu sol am kap ne leen ko ah faal njaga yaaram ñu ngi lay ziyaar di la bége di la jox sa wàcc waay xanaa yëgoon ne ku tedd ki day tere lii waay màggalaat warmaal dëkk bi waaye maanaam nit dangay ngay am nooy doxalee mais bu leen ñëw rek jaay nit ñu doole këf seen kii yi dagg ko déedéet. am na ci ñoo xam ne journée bi mën ngeen leen a gis ñaari yoon ñetti yoon ku ngeen ci dajal ne ko ah Fall màggal naa la ziyaar naa la de ah ñu warmaal dëkk bi boog fii dëkk Seexul Xadim la de dëkk bi nan ko warmaal waaye nan ko warmaal waaye Touba gi ab dëkk la sa àjjana de Serigne tuubaa tuddee ko Touba nan ko warmaal wax ak nit ñi bu ko defee yow nit ki mënoon naa am jikko yu nekk ci moom sax nga dindi ko ndax discours bi nga xam ne am nga ko bàyyi leen violence bi ngeen di wan nit ñi. Bayi len violence bi ngeen di wan nit ñi bayi len violence bi ngeen di wan nit ñi touba dañ fay téré ko sol kap jeune bu ngeen gis mu yor sarétu fasam wala sarétu mbamam wala mu yor sol ab kabam arrêté len ko moom taxaw nga ne ko ah faal njaga yaram ku tedd ki da koy tere nan warmal dëkk bi way mom lañu am de dëkk bi di touba mbacké serigne touba Euh, turu këru àjjana ya am na dëkk bu ci am na euh, dëkkuwaay bu ca tudd Touba moom la Serigne Touba jël kat tubbee ko Touba gi nan ko war maalaat ñun kat Serigne Touba li mu daj ci ñun ak lim ñu defal bu ko defee di ngeen yar nit ki nit ki mënoon naa am ay qualité yu nekk ci moom sax mais discours boobu ngeen di def ci moom mën na am yeneen qualité yu mu def ci moom bàyyi leen caaxaan yi. bàyyi leen nooteel noot noot gi nga xam ni yéen a ngi koy noot askan wi te yéen bokk ngeen ci ñi gën a sonn ñu ci bari ci yéen ci kër sëriñ si ngeen di añee ñu ci bari ci yéen ci kër sëriñ si ngeen di reere ñu ci bari ci yéen tey seen kër <coughs> cin du fa tàkk ñu ci bari ci yéen ni ngeen di xëyee ñëw ci kër sëñ bi noonu la seen jabar ak seeni doom di xëyee di ñëw ci kër sëñ bi am leen yërmaande ci askan wi bu leen daray àdduna jaral tey ngeen jàpp askan wi di leen torturer ngir kalaasu Bass Abdou Khadre gi nga xam ne ay sàcc lan ay imbécile lan ay doomeraam lan bu leen ko daray àdduna jaral ci askan wi ngeen bokk bokk ngeen ci ñi gën a sonn ci askan wi seeni jabar bokk nañ ci ñi gën a sonn ci askan wi seeni doom bokk nañ ci ñi gën a sonn ci askan wi kon sama mbokk Baay Faal yi maa ngi leen di ñaan ngir yàlla war a suuli hii man booy Malika erreur yi bu mu leen dalati ndaw lu ngeen dajal ci mbedd Touba yi nee ko Fall Njaga yaaram ñu ngi lay ziyaar ñu ngi lay bëggee dëkk bii dëkkub seexul xadim la seexul xadim dafay tere lu mel nii bu dee da ngeen fee daje ku ku as ndaw su jigéen moo xam ab jeeg la moo xam as jànq la nga ne ko ah sunu yaay soxna jaara man ngeen koo tuddee sax soxna jaara ne ko ah xanaa buggoo mel ne yaayu seexul xadim soxna jaara roy leen ci soxna jaara yaayu seexul xadim am leen war ma ci dëkk bi dëkk bii di Touba Serigne Touba de lii mu am ndeyam di soxna jaara de moo ko liggéey te jigéen la comme yéen bu ko defee ngeen jàjji leen bu ko defee ngeen jàjji leen ngir yàlla wa rasuulihi bàyyi leen ndaw ñu ngeen di toroxal ndaw ñi seen bàyyi ak seen maam yi dañoo bàyyi seen dëkku maam yi ñëw ni dëkk boobu falan war a texee si dëkk boobu falan war a amee jàmm dëkk boobu mën nañ faa dund dund gu am ah, dund gu maanaam dund gu amélioré mais tey bu ñu demee tey ba Sénégal toll si situation yi war ngeen a am beneen taxawaay bu dul di xoqutal ndaw ñi. billaay sama xol bi dafa fees sama sama put gaa ngi wow kong maa ngi leen di jaajëfal yéen ñëpp fii laay yamale live bi ci waar laa nekk de yàlla xam na ko fii laa yamale live bi am na saay-saay buy ree nag ak ñoo bon ñii ñoo bon fii laa koy yamale di leen jaajëfal lu bare bare bare bare bare Omar borom Brésil ziar naa la nag <laughs> maa ngi ci waar yi de eh, dégg machine yi di riir mang, ngi lay si maa maa ngi lay lay lay ziar lu baree baree baree bari di jox gaa yépp seen wàccuwaay di dilen ñaanal jàmm di leen wax ni billahi Sénégal dongo ñu ñor xam ngeen ni téye say doomi té sey séti sëriñ di daggal seen nday xam ngeen ni neexul ci xol de neexul neexul ci xol de yeen ñepp xam neexul ci xol billahi lu metti la li ñuy def ni di leen ko def di téegal seen nday ni billahi lu ñu metti la mais nak mënu ñu ko ñaka def parce que ay doomi xaraab ngeen da ngeen di jema juk jema bax a baax alalu askan wi ngeen fexé askan wi jot ci 47 communauté laayeen yi ngeen fexé laayeen yi communauté laayeen gis ci bopam njoon ngeen baña jubo rek pour jaay suuf si boy malika ngi taxaw di xol Boy malika mu ngi taxaw di surveiller de worna na mu ngi taxaw di surveiller waw ma ngi taxaw di surveiller de man mom kenn duko lek ba ma mom yalla mi ñu tiim ko waw man mom. bu dee da ngeen ko nara dag rek euh ki askani mom man mom 5 hectares la ci soxla mom wor na yàlla lu ko may fii laay toog di dëgg seen tay sans caaxaan man aw ma ci complexe billahi wal kitaabi aw ma ci complexe aw ma ci lu may regretté barki arxuraanul karim parce que ci laa bokk doon gone du tee du du tax ngeen bëgg maa xañ sama ak ak sama yelef du ma nangu ndayam su ma doonee gone aw ma aw ma doole aw ma connaissance fii laay toog ak sama làmmeñ ñaaw barki arxuraan di saaga seen tay rek billahi wal kitaabi yàlla xam na ko du ay caaxaan wóor na yàlla yàlla mi ñu tiim xam na ko waaw yàlla mi ñu tiim xam na ko yéen njabootug sëñ Ablaay yéen waroon ngeen a bokk ci ñi ëpp yërmande ci doomi sëriñ si parce que yàlla dafa def seen baay daa bëri woon ay jeeg lool bëri njaboot lool kon kooku xolam yaatu woon na kon yéen nit waru leen a gën xol nit waru leen a gën a yaatu bu ngeen ñu naree seetaan nag booy Malika ab ceddo la de man moom saa tiaxan dama len koy wax mu leer barke alquranul karim waaw waxuma la xol ci sayna limam mais yalla mi ñu sàkk sax duma ko ci seet billahi wal kitab pour jamar yéen ak yeen xotti seen ciot nday wax billahi duma ma ci seet sax yalla ba di ba di ba ciy seet bàyyi laay billahi wal kitab do ay tiaxan parce que yeen ñi moom ku nara jël sayna Limaamu di len ci seet wala mu len di ci seet yalla ak yoy ci toroxtaange lay dëkk billahi parce que du ngeen ay nit ay doomi ram ngeen motax duma ci set kenn de barke alquran amul mbindef mu ma ciy seet seetuma ci yalla setuma ci mbindef billaahi parce que du ngeen ay gor barke alquran du ngeen ni gor set kenn la ci setul billaahi waaw ay boy malika ay boy malika waaw man nga dal ci kaw ñepp bam dess des njoon mo moo mo la ñaanali won jabar ak man leen njoon la gëna mëna attaquer mom mi ma ñaanali won jabar sama dundu gi lu mu ci wax sunu doom yi ñëw ëllëg sama site yi njoon lu mu ci wax moom laa gën a mën a attaqué di te 47 hectares yi sama àdduna mën na cee baax sama àdduna njaboot mën na cee baax ah da da ngeen da <laughs> du ma ko def du ya ya seetuma ci yàlla ba ciy seet seen maam billaahi duy caaxaan du ma ci seet yàlla ba ciy seet seen maam wax leen ci Sonko seet leen ci seen maam ngeen wax ci Sonko seet leen ci yàlla ngeen wax ci Sonko seet ci seen baay ngeen wax ci Sonko ndegam yéen a nanguut seet ci seen maam wax ci réew mi ndegam yéen a nanguut wax ci seet ci seen baay wax ci réew mi ndegam yéen a seet ci cër bi leen yàlla defal wax ci réew mi <laughs> man boy malika ban ciir la am ci communauté layen ban ciir la am ci rew mi ludul sama lameng wi ñaaw yi duma ci set kenn la ci dul set wax leen ci rew mi wala ma jël sama danku binkal akina ton sax neena dakar da da saf jël binkal wala ma jël sama danku binkal buma xoram ka diko sañ ko ci seen ciot nday billahi <laughs> wor na yalla doy jaaxat binkal bi kay lay dank lay dank ni binkal la daan ni dank ndayam dank ko xam nga maire yi sax bengkel sànc bënkal du jafé parce que seen ciottu yi ki na laxna nini ni sama dank danku bënkal bi si ciottu maire yi <laughs> sama bu doon bu goné sax day metti mais eh, ay maire la ci yu maire la jëm boko danké ni ni ni bu ubbé tankam bo né ni rek day dem sa bii doo day ubbi rek nga sanni maire yi dañoo le <laughs> billaahi yéen xamu leen fan jëm ak yéen billaahi wal kitaabi xamu leen fan jëm ak yéen nee naa leen ab kàccoor saa bu ngeen ko gisee muy reetiit leen. sa bu ngeen gisee ab xaj bi ree leen na ngeen tiit de xaj buy reetaan <laughs> fu ngeen ko gis tiit leen xam ne tey mu lekk seen nday <laughs> yéen yéen am coow kala naxaa dëgg ndeyam yéen a am coow yéen leen jël sunu danku bénkal yu am netatu yi am xorom am paaj kattu ko ndayam seen digg lëfal nday yi di ngeen wax ci réew mi ne doomu xaram yi moo xam satu sëñ tuubaa nga bu ñu seetaan moo xam satu bàyyi laay nga bu ñu seetaan moo xam satu bàyyi ñes bu ñu seetaan nga moo xam satu euh, seydi xaaji malik bu ñu seetaan nga dinañ katt sa nday ba nga nek nit billahi waaw amna ben way nan ma boy malika nak wax deug ci yalla sa wax ji ñaaw na la nga nan waaw mbay si mansour ndig la ne karaj da AVC ma waaw mbay si mansour suno àq ko dal àqu di set bebe ya deewante waaw na ko dal àq bebe ya billahi mo dal mbay si mansour mbay si mansour ma sa tiwaawan àqu bebe ya ko dal parce que mom mo tok ministre de l'intérieur tok na ngeen def enquête def leen enquête waaw réew mi waaye nag bu ngeen defee enquête ba pare na ngeen ci dugal yàllaa ko dogal est ce que dégg ngeen wax ji maanaam def leen enquête xam ñii lan moo leen rey mais bu ngeen defee enquête ba gis li ko rey li ngeen taxaw xam ne lii kat yàllaa ko dogal mbay si yaay yaay yaay yaay yaay waga po moo tax ndigg la nee mbay si def yow la toroxal ma yor sap yor sap tablette daire bergabon vingt euros ah, ah waaw vingt mille euros <coughs> daayira Amérique trente mille dollars mbay mbay si Mansour yaa bon te trente mille dollars yooyu mënoo fexe ba hôpital Alaaji Abdou Baax ci nga mën cee faju mbay si Mansour sa AVC bi bu nee karaj ci jet privé lan lay dugal yóbbu la ba turki faje la billahi ay doomu xaraam ngeen yéen billahi ay doomu xaraam ngeen yéen a bon <laughs> motax mané yeen rek la yalla toroxal jigi billahi ñi rek la yalla toroxal nee len leen yàlla toroxal leen wul ngeen ne alaaji maaliga jur sama baay alaaji maaligay sama mam, sëriñ tuubaay sama mam seyna lima moy sama mam, baay say sama mam, cierno ca kaw cierno sa soufay sama mam, ngeen tok ay xala yu ndaw tok di ibbi seen benqali nday di kat seen nday te mënu leen ci dara torox mën ta passé li ko torox jiji kan mo torox ku torox billahi yena torox di ngeen wax ci réew mi de réew mi billahi di ngeen ci wax nan kat seen nday ba ngeen xam ni réew mi dañ ci am baat barke alquran dul leen wacc tay dul leen wacc suba dul leen wacc ginnaaw suba ma ngi xeer nak ba kenn wo ma nan ma boy malika tay sama yaram da tang ku sel ke ne ci kasso bi te doomu kharam yi ko kompaloo ban tej ndayam ci kasso bi songu deful garab de la fere te billahi wal kitaab ji sunu koptel molotov ci keur ci yoof moom kër yu bari xam naa ko am na kër yu bari neex naa tëmbal ay cocktail molotov parce que balcon yi fi mu génn la barke Seydina Mohamed billahi wal kitaabi waaw yàlla mi ñuul tey mu xam na ko barke alxuraan ay doomu xaram lan dañuy xeex ak yéen ba mu saf da ngeen ñoo seetaan dangeen ñëw ñoo seetaan kenn nangu ta wax ci réew mi doomu xaraam yi appel bu dee jub si fi mu ne waa màggal gaa ngi def CDD day leen xool ba ba ba màggal gi ba paase. waa kër mbay si Mansour ñëw seen CRD ak CDD yi <laughs> mais mbay si ren du ko tal nday saan mbay si daa pour pourtant nag yàlla mën na koo rey balaa kii bee ñëw de yàlla de man na lu ne wóor na yàlla mbay si da daa AVC mais àqu àqu di set di set bébé sa tiwaawana la dal parce sa wax ji dafa rëy. def len enquête mais bu ngeen defé enquête na ngeen ci duggal yalla ko dogal mbay si mansour li ñu lay wax yalla ko dogal yalla dogal ñu tok fi dugg ci seen bir tiaay yor tañaj diko kep ngeen naan oy ñi kep ngeen naan oy ñi kep yalla ko dogal mbay si yalla ko dogal de yalla dogal li billahi yalla ko dogal barke alquran yalla dogal ngeen nek ay mak yu bon yalla dogal ay xalé ñew di kat seen bajjen billahi yalla ko dogal yalla dogal li di billahi yalla ko dogal barke alxuraan yàllaa dogal lii mbay si yàllaa ko dogal yàllaa dogal lii yàllaa dogal ngeen nekk ci réew mi nekk ay doomiraam nekk ay seetaankat ay xale yu dëgg nekk fi di toj seen cott nday yàllaa ko dogal billaahi yàllaa ko dogal wóor na yàlla yàllaa ko dogal yàllaa dogal lii waaye tàccu leen yàllaa dogal lii wax leen ci réew mi yàllaa ko dogal billaahi yàllaa ko dogal dogalu yàlla la lu yàlla def nag kenn mënu ci dara moo tax Aïssata Tall Sall wax na ba sonn Antoine jom wax na ba sonn Macky Sall wax na ba sonn mënu ci dara yàllaa ko dogal mënu leen fee jële nit yàllaa dogal lii yàllaa dogal ay nit yu ñàpp ndayam nekk ci réew mi yàlla jël ay xale yóbbu leen Brésil yóbbu leen France yóbbu leen Allemagne yóbbu leen fu ne ñuy fete seen bele fete ndey di leen jox ngeen naan doomu xaj yi ngeen doon yàllaa ko dogal kat yàllaa ko dogal doomu xaraam yi ngeen doon fii laay ñëw yemale live bi dinaa ci ñëwaat gan koo yaatal tàllal seen cott ndeyi bam ni ñareel doomu